إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala suñu boroom booba nga xam ni moo ñu tànnal ngeen ji yonent yónni ñu ko tànnal ñu ngeen ji diine teg ñu ca ñi ngi seede ne kenn yeyowul ñu koy jaamu kudul moom di seede ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la woon ba mu yónni ci ñun ñi ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ca lépp lu ngeen di wax doon wax du dëggu su ngeen ko defee day yàlla jubal seeni mbir baal leen seeni bakkaar képp koo xam ne nii dafa topp yàlla topp ndigalu yàlla fokk dana texe àdduna texe àllaaxira yal na yàlla subhaanahu wa taala boole ñu ca mbokk jullit sunu xutbab tey bii mooy naka la ñuy war a bëggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi dund ay fan yoo xam ni doomu aadama yaa ngi feeñal seen mbëggeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ku nekk ak na nga ko gise waaye suñu delluwaatee ca lañu yàlla sant e yéen jullit ñi fu ngeen jooyoo dellu leen ci alxuraan ak sunna ngallaawaay nañu delluwaat ci alxuraan ak sunna xool yàlla mi yónni woon ab yonentam ak yonent bi yàlla yónni woon ci ñun ñoom nan lañu diglee ñu bëggee noonu yonent yàlla bi lu jiitu suñu borom yàlla day subhanahu wa taala dane ey yéen ñiy woote wooñe da ngeen a bëgg yàlla topp leen yonent yàlla bi kon de yàlla bëgg leen te xam nañu ne lay sabab bu tax doomu aadama yi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ngir yàlla subhanahu wa taala mi moom àjjana ak sawara moom àdduna ak àllaaxira bëgg ko ba mën koo teral waaye yonent bi amalul nit ñi njariñ amalul nit ñi lor loolu moo tax it yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal ñu wax ne e yéen nit ñi xam leen ni kenn ci yéen day balaa ngëma ma mat day fekk man maa koy gënal ay woy juram gënal ko njabootam gënal ko képp koo xam ne yàlla bind na ko ay way ak ne xoon xadis bi mboolem fu ay jullit dajee ñu fàttali leen ko mbokk jullit xamal ne ñi yàlla subhanahu wa taala bind ka nga ci war a gën a bëgg war koo gën a fonk mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam du ab sahaaba du ab yonent du malaaka waxumaa nag ab sëriñ bu ñëw gannaawam ak kum mën a doon ku ñuy yemeleeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amma koo jël mbëggeelam nag teg ko ci kaw mbëggeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demal nga jàngiwaat sa diine xamoo luy diine lislaam e yéen ba ko julit sunu borom yàlla daa tëkku ci ab tëkk bu màgg mu ne bu ngeen demee ba seen way jur yi ak seen doom yi seen frères yi ak seen soxna yi famille famille yi ngeen bokk ak alal ji ngeen ji ngeen di fàggu ak kër yu taaru yi ngeen yi ngeen yi ngeen dëkkee ak commerce bi ngeen bañ mu yàqu su ngeen demee ba lenn ci lii gënal leen topp ndigal yàlla topp yonent yàlla buñ demee ba lenn ci yéen gënal leen yàlla ak yonent yàlla ak jihaat ci yoonam suñu borom mu ne toog leen ba ma fekk leen foofu yàlla du jubal xeet ak faasiqiin mbokk nga dem ba leneen gënal la yonent yàlla ci mbindaafanu yàlla yi suñu borom ne na yaa ngi bokk ci faasiqiina yi mooy ñi nga xam ne génn nañu rëddug lislaam loolu moo tax ba mbokk julit wareef la ci ñun ñu delluwaat ñun day yonent bi gisuñu ko dañ koo dégg rek suñu digganteeg moom junni ak ñeent ci téeméeri at dox na ci ak mbëggeel guñ ko mën a bëgg mu gaa yi ndax men ngeen imaginer saxaaba yooyu nga xam ne ñoo taqoo woon ak moom mu leen di jiite waxtu juróom ànd ak ñoom ci jihaad ba ak aj ba ñu seede wax ju tedd ja seede jëfam yu màgg ya ndax jàpp ngeen ne suñu mbëggeel mën naa seen mbëggeelu saxaaba ya déedéet mbokk julit kaay yi ma jox la benn échantillon kenn ci saxaaba yi ni ñu koy tudde Saad ibn Muaz bokkoon giir bokkoon kilifa gu mag ci giiru Madina ya nga xam ne nii ñoo teeru woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak néew julit ñoo xam ne xam nañ ko waaye keroog xare Badr ba yonent bi jaaxle génn na ak armée boo xam ne ñetti téeméeri nit rek lañu dégg na waa Makka ngi ñëw ak junni nit léegi luy pexe ca moom la mu siñante woon ak waa Madina mooy su ma ñëwee Madina da ngeen ma aar ca tey génn nañ Madina yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ah waa mbokk yi lu ngeen xalaat Saad ibnu Muaz jóg na ko ay yumi yàlla yónni bu dee ñun waa ansaar ñoo la tax di wax ñun de ñoo jël suñuy bakkan jox la ñoo jël suñuy alal jox la la nga jël ci suñu alal moo ñu gënal lag ñu bàyyee ay yow yonente yàlla bi waxal loo digal ñu def wallahi ñun waa ansaar boo la ñu woon kaay leen ñu ànd xuus géej gi dem ñun ñépp daañu xuus kenn du des gannaaw du mag du ndaw ñun waa ansaar tey boo dee suba da nga bëgg ñu dajeg waa màkka daan dajeg ñoom kenn du des gannaaw da nga fekk ñuy aj muy muñkat ci la nga xam ne mooy wàllu geer waaye ay ñuy matal la nga xam ne mooy kóllëre yonente bi alayhi salaam jóg daal di muuñ kanam gi yaatu mu ne bég leen yàlla digle na ma daal ñu dimbali mbokk lii mooy échantillon ci benn sahaaba bu doon waxal waa ansaar ñoom ñëpp ñu teew mbokk nañu xool keroog xare Uhud xare bu màgg boobee nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéefir yi ndar képp nañ ko natt ñëw na lenn ci saxaaba ya sax tiit ba daw lim bu néew ñoo ko wër bokkoon na ci ñooñu ko ñuy wax abu dujaana rasul sallallahu alayhi wa sallam yéefar yaa ngi tawal fitti ci moom abu dujaana ñëw daa di bóof ci kawam fitti yi di dal fitti yi di dal ba baa ñuy musal yonent bi alayhi salaatu wasalaam bañ ko yëkkatee dafa mel ni ab siñeel ngir fittee nekkoon ca kaw mu daal di faatu radiyallahu anhu waaye yëngatuwul ngir aar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nga ne ma ay góor lañu keroog bañ jógee xare Uhud benn soxnaa ngi nii bu bokk ci bani dinaar ci diiru madine yi am ñu dajeeg moom ne ko ah soxna si muñal man dey gis naa sa baay shahid na rey nañ ko mu ne alhamdulillah waaye ana yonent yàlla bi ñu ne ko mi ngi ci gannaaw muy dox ba dajeeg keneen mu ne ko soxna si muñal man de gis naa sa frère ba rey nañ ko mu ne alhamdulillah waaye ana yonent yàlla bi ñu ne ko mi ngi ci gannaaw mu doxaat dajeeg keneen mu ne ko soxna si muñal sa doom ji de gis naa rey nañ ko mu ne ko alhamdulillah waaye ana yonent yàlla bi ñu ne ko yonent yàlla baa ngi ci gannaaw ba mu demee ba jàkkaarloog yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko kullu musibatin baadaka hëyyina bépp musiba boo xam ne mën na maa dal comme yow mucc nga rek loolee nekkatul lu dul lu woyof la lu yomb la mbokk ñi mooy sahabatul kiram ñii ñoo bëggoon yonent yàlla bi bëggeel boo xam ne dañ koo wane ci seeni jëf wane wuñ ko ci bànneex ak folklore ñii mooy sahabatul kiram ñi nga xamee ne mbokk képp kuy rey ñooy sa royukaay yi mbokk yonent yàlla muhammad mooy ki yàlla subhanahu wa taala gën a màggal mboolem la nga xamee ne mooy nit ñi mboolem borom xam-xam dëppoo nañ ñi moo ci gën a màgg ci lépp lu yàlla bind ci ay nit la nga xamee ne nii mooy lu yàlla mas a bind na doon ay malaaka ak lu mu mën a doon la ëpp ci borom xam-xam yi dañ ñe mboolem lu yàlla bind moo ci gën a màgg waaye nag ndax màggaay boobee nga xam ne suñu borom moo ko seede ne wàcce naa ci yow téere bi wàcce ci yow xikma ba koy firi xamal la loo xamul woon ngëneeli yàlla loo màgg la ci yow kon yàlla màggal nay ngëneelam waaye naka la ñuy màggale ngëneelam yooyu mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala ba màggale yonenti yàlla ba da caa teg ne waxal nit ñi nag na leen qul innama ana basharun mislukum man nit laa rek comme yéen dañ ma wax yu jëme ci yéen lu ma leen war a jottali waaye ngal la waay ku bëgg ëllëg ci si biir yàlla yàlla teral ko na jëf-jëf ju baax waaye wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada bu mu bokkaale kenn ak yonenti ak ak borom bi subhanahu wa taala mbokk yonenti bi alayhi salaam mbëggeelam dafa am fuñ koy yemele mbëggeel ba du yegg mukk ñuy jaawale ak yàlla ak i aqam mbokk heure boo xamee ne ni bëgg ngaa noppalu heure boo bëggee ngërëm suñu borom yàlla subhanahu wa taala dafa tagg sahabatul kiram daa dina walazina tabauhum bi ihsaan ña nga xam ne ñoo leen topp ci rafetal ngelawaay boo bëggee ngërëm xoolal naka la sahaaba yi bëgge woon yeneen ci yàlla bi nga bëgge ko noonu sahaaba yi nan lañ ko bëggee woon dañ koo bëggee woon ca mooy mu gënal leen lépp lu yàlla bind dañ koo bëggoon ci topp ay ndigalam bàyyi ay tereem ñuy dem loolee sax ci lislaam sax ci lislaam bañ dem ba ay siècle yoo bari ay téeméeri téeméeri at ay yeneen façon jullit ñëw ñoom jàpp ne ah sahaaba yi nañ bëggee woon yonent bi doyul daa di créer ay salaat salaatu ala nabi yoo xam ne nii nee nañ loolu la ñuy màggale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ca ñenn ci ñoom ñu dem ba yegg ne salaatu bii ñuy bakke yonent yàlla bi moo gën a màgg alquranul karim créer la nga xam ne nii mooy ay gàmmo yoo xamee ne nii amul benn borom xam-xam buy gàmmo waxuma nag ku gàmmuwul dama ne borom xam-xam buy gàmmo lu dul boo ko laajee dana la wax ne ah lii de dañ koo rafetlu waaye yonent bi alayhi salaam jóge na fi ñeenti téeméeri at sahaaba ya génération ba ca topp ba ca topp ba ca topp xamuñu luy gàmmo ba baa ay buur ñëw créé gàmmo bu doon daa yem ci ne ñoom kat créé nañ ko rafetlu nañ ko xëyrul waaye ñoom da ngay gis ñu dem ba yegg ne guddig mawlud day moo gën a màgg guddig laylatul qadr bi suñu borom ne laylatul qadri xayrun min alfi shahr loolee mbokk ay kilifa yu mag dañ koy wax du Indonésie du Espagne waaye Sénégal gii ñuy juddoo loolu mbokk nekk ay mbir yoo xam ne nii dem nañ nag ba mbir yi wëlbatiku mooy ña nga xam ne ñoo waroon a défendre sunna heure bu ñu gisee ñu créé lu ca bokkul ñu jàjj leen léegi contraire ba mooy am mooy ña nga xam ne ñoo jël ay mbir yoo xam ne nii jàpp nañ ne moom la ñuy bëggee yonent bi moom lañ sos si diina ji ña nga xam ne ànduñu ci ak ñoom léegi ñooñu nag léegi ñoom ñooy ñi seen diina manqué ñoom ñooy ñi nga xam ne amuñu cafeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk déedéet màggal yonent bi du sosal ko màggal yonent bi mooy topp ko màggal yonent bi mooy doyloo sahabatul kiram ca mooy gëm sunnaam topp sunnaam suñu borom yàlla subhanahu wa taala nañu lépp loo xam ne yonent bi da koo indi ngalawaay jëf leen ko lépp loo xam ne yonent bi tere na ko bàyyi leen ko tey jii boo demoon la ëpp ci ndaje yi nga xam ne dañ koy ndaje lu ne da nga fa gis soof la nga xam ne day dundal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom yàlla jalla wa ala mu ni ngalawaay na moytu ñi nga xam ne dañuy juuyoog moom aw doxalin fitna dal seen kaw wala mbugal bu màgg dal seen kaw ay yow mbokk julit bokk na lay yoo xam ne dañ koy lay mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day màggaloon na ak juddoom na am màggaloon ak juddoom nan la ko defee woon ñu ne ah yonent bi de altine bu nekk daana woor ngir màggal ak juddoom alhamdulillah suñu borom nee nañu am ngeen royukaay bi rafet ci yonent yàlla waaw ko nit nañ màggal juddug yonent bi nga la waay nañ jël bâche yaag chaise yaag millions yi ñuy yàq nañ ko jël delloo ko ci luy jëriñ jullit ñi ca màggal yonent bi nam ko doon màggale sahaaba yi doon ko màggale ca mooy altine bu nekk doomu aadama yi woor ngir jublu ci ngërëmal yàlla lii mbokk nga la waaye nañ ci bàyyi xel bu baax bari waayu mbir bum la nax yow doomu aadama dëgg nekkul fa mbooloo ma nekk dëgg nekkul ci ak siiw dëgg mi ngi nekk ci ay tegtal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga koy màggale mooy topp sunnaam lépp loo xamee ni ni xam nga ko nga jëfe ko ca loolee lépp la lay jural tuyaaba looloo tax Omar ibnul Xataab keroog ba mu demee aji Makka jiite sahabatul kiram bi muy wër kaaba gi ba yegsi ci xajarul aswad da koo fóon daaju na ko nag xam naa ne yow xeer dong nga amoo njëriñ amoo lor bu ma gisul woon yonent bi fóon la kon du ma la woon fóon lan moo tax Omar fóon xeer bi du dara parce que yonent bi fóon na ko looloo taxit yow yonent yow ngir nga màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax benn guddi la ci at bi déedéet mbokk yonent bi alayhi salatu wasalaam dañ ko war a màggal chaque jour bés bu nekk fi nga yeewoo salal ba baa ngay tëdd yaa ngi war a màggal yonent bi alayhi salatu wasalaam heure boo xamee ne yaa ngi yeewu def askar ya yonent bi jàngale yaa ngi màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam heure boo xamee ne yaa ngay dem di jàpp naka yonent bi defee julli naka yonent bi defee yaa ngi màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam heure booy solu nga solu naka yonent bi diglee yaa ngi màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam heure booy lekk lekk naka yonent bi diglee yaa ngi màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam askar ya ngay def bu dégg bëccëg dëppale ko naka yonent bi jàngale yaa ngi màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa war a nekk bés bu nekk waxtu bu nekk place bu nekk xaal bu nekk jullit ma ngi cay màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax lépp lu muy def day xeeñtu nan la ko yonent bi alayhi salatu wasalaam defee woon lii la ñu borom bi wax mu ne nag moytu leen juuyoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën na leen a jural la nga xam ne muy fitna mën na leen a jural la nga xam ne muy mbugal sayid ibnu musayyab kenn ci imaam yi wuute yonent bi alayhi salatu wasalaam ca place ba mu doon jullee la gis nañu nodd fajar ba pare benn waay jóg julli ñaari rakka sëlmal julli ñaari sëlmal mu ne ko ay yow mbokk bi gannaaw nodd fajar ñaari rakka dong lañu war a julli mu ne ko waaw imaam yàlla dana ma mbugal ci julli mu ne ko déedéet waaye mën na laa mbugal ci safaanoog sunna kooku daa jàpp ne julli baax na comme bu ñu noddee bala ñoo julli dana yàgg kon lu ma mën ci rakka ma def ko imaam bi ne ko déedéet ci ñaar nga war a yem ndax yonent bi loolu la jàngale cal man na yàlla subhanahu wa taala yonent bi daana wax ne man raxiba an sunnati fa laysa minni ku xeeb sama sunna bokkoo ci man loolu mbokk nga la way nañ ci bàyyi xel bu baax bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa war nañ koy bëggee mbokk du lenn lu dul ni yàlla wax su ne ay Aïcha radiyallahu anha nee na benn góor dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di sëngëm rek sëgg doon ko triste yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko waaw suñ caam lu xew mu ne ko ah yow mi yàlla yónni man de yàlla daa def suma xol ma bëgg la bëggeel goo xamee ne nii danaa ñëw toog ak yow ba mujj ma nibbi kër ga nekk ak soxna yeeg doom yi danaa toog toog toog dama la mën a muñ ma jóge kër ga ñëwaat ci jàkka ji ngir rek gisu la sallallahu alayhi wa sallam te damaa xam ne lu mu yàgg-yàgg daañ ma sa faatu ca même bu dee góor-góorlu naa ba dem àjjana place bala yàlla di teg ci àjjana du bokk ak sama place kon mën naam dootuma la gisati loolu moo ma naqari suñu borom yàlla wàcce aaya ba borom bi da wax ne wa man yuti illaha wa rasula fa ulaika maa allazina an'ama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhadaai wa salihin wa xasuna ulaika rafiqa suñu borom yàlla ne ku topp yàlla waxul ko bëgg de képp koo xam ne topp na yàlla topp na yonent yàlla ku mel nii day dana ànd ak yonent yi ëllëg ànd ak siddiqiina yi ak ñi dee fi sabilillah ak saalihiina yi ànd bokk fu ñu dëkk ci aljanna yonent bi na ko bégal almaru ma aman ahbabta képp koo bëgg ca wér yéenay bokk ànd fa ngeen di nekk ci aljanna loolu mbëggeel ba lu koy firi mooy da ngaa toppoon ay ndigalam bàyyi ay tereem ay yéen bokk julit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nii lañ koy bëggee sahabatul kiram wallahi xam leen ne duñ leen mën a dab abadan abadan ci bëggeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngalawaay jullit ñi nañ noppalu lu sahaaba yi defalul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu sonal seen bopp di di ko ko defal lépp loo xam ne ngërëmal yàlla ma nga ca yàlla dëpp na leen ci moo ndax mbokk sahaaba yi nga xam ne tudd aw turam rek dafa màggoon ci ñoom ndax yéen mosu leen dégg histoire Bilal Bilal mi taqoog yonent bi alayhi salaam ñaar fukkaat ak ñett amul julli bu yonent bi mas a julli ci Madina ci tukki lu dul Bilal moo ko nodd keroog bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam faatoo Bilal ne moom attanutul nodd ba pare waxtu julli jot ñu toog di xaar ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génnul mu ne dootul nodd abadan gàddu jaaseem dem jihaati fi sabilillah ca Sham bis yàlla dogal mu ñëw Madina fekk fu waa Madina gaa yu topp ko Bilal dimbali ñu noddal ñi Bilal dimbali ñu noddal ñi xale yi musul dégg nodd Bilal Bilal daal di yéeg bim noddee allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah fa muy waxee ashhadu anna muhammad rasulullah attunu ko fa la dégg nodd gi toog di jooy Madina yépp di jooy mbokk ñi mooy sahabatul kiram ñii ñoo bëggoon yonente yàlla ba loolu moo tax ba ngalawaay nañ xam ne nañ ko war a bëggee nekkul di sonal sa bopp mbokk yonente yàlla bi dañ koo war a jàng doxalinam jàng sunnaam jàngal ko suñuy njaboot dund dund la nga xam ne mooy diine fexe suñu soxna yi ku leen gis xam ne kii ci njabootu yonent bi la bokk suñuy doom ku leen gis xam ne kii ci njabootu yonent bi la bokk ñu topp la nga xam ne mooy ay ndigalam wallahi lii buñ ko defee mooy la nga xam ne nii danañu noppal du ñu indil benn benn la nga xam ne mooy benn coono amma nag bu dee ne dañoo jadd yoon ba jàpp ne day sahabatul kiram ñoom seen bëgg yonent bi dafa desoon wala boog ñun day xam nañu ci yàlla loo xam ne nii mën nañ koo defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla gërëm ko waaye sahaaba yi ñoom dañ koo xamul woon mbokk ñaar yooyu yépp nañu xam ne ay njuumte la yal na yàlla delloo ñu ci gën jaa rafet ci delloo ci suñu diine yal na yàlla wéeral bëggug yàlla bëggug yeneen ti yàlla ci suñu biiru xol yal nañu yàlla boole ci jaam yi topp yàlla ko yeneen tam yal nañu yàlla boole ci ñay dëkkandoo ak moom ci firdawsil aala yal na yàlla laabal ci suñu réew ci ñépp ñuy woote di teqali nit ñi ak sunna yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yàlla woo musal ci ñépp ñuy yëkkati ay nit di leen teg ci kaw yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla wàccal ñu aafiye suñu réew wàcc ko ci mboolem réew yi jullit yi nga xam ne dañoo am fitna yal na yàlla teetal ñu suñu njaboot ala sirat al mustaqim yal na yàlla rafetal suñu mucc allahuma rabbana atina fi dunya hasana wa fi alakhirati hasana wa qina azab annar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin